بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid walam yulad asalaamualeykum mbokk jullit yi asalaamualeykum soppe alquran daaray sëriñ mouhamadou badiane seck bayti seck si ndigalu elage ñaxal seck xalifa sëriñ mouhamadou badiane seck si njiitalu sëriñ xujja seck mbokk yi El Hadj Serigne Seck ak ñi koy jàppale si liggéey bi Serigne Talla Mbaye ak Serigne Fallou sekk ak ñëpp ñi ngànk liggéey bi moo leen di yéegal bésub tari alxuraanul karim ba ñuy amal ca daara ja ma nga yemook ajjuma 14 juin 2024 programme bi dinañ ko tàmbali 8h30 jàpp 13h30 xew-xew bu mag bii nag di bésu alxuraan di bésu màgg ñoo ngi si woo képp ko alxuraan ñor di si woo wépp waajurub xale yi tund mbàkkool gépp fàttewuñu kenn bàyyiwuñ ñenn bés bi nag mbokk yi ñoo ngi ko jagleel Serigne Modou Sylla ñaaxeen di ko yégal si la ca daaru ñaaxeen ak képp ku dëkk si tundub mbaakool kon mbokk bis baa ngoog ajuma doon fukki fan ak ñeent si weeru juin si atum bi ñu nekk bisub alxuraan ñoo ngi si soppee alxuraan yépp fàttaw ñu si kenn bàyyiwuñu si ñenn